beneen bi mooy gis nañ ñu wax ci waxu fer bi nga xam ni moo génn Sénégal ñu tudd ci opérateur économique Baba Diaw may xamal nit ñi ni leen Baba Diaw nekkul ci loolu ki ci nekk xam nañ ko bu baax ministre la boo xamante ni mi ngi occupé ay post yu am solo ci gouvernement Macky Sall xam nañu taxawaayam xam nañu ni siège président Macky moo ko tax a jóg. koku moy jël ay information diko jox Sonko te mom mo financer Sonko ci campagne bi nga xamni mo doon def Sonko duko mësa attaquer ci aduna dégg nga xam nañ ko juñu doyna borom xel nan baye affaire tapalé yi ni def Sonko lepp lu mu wax nar bu ndaw bi lu mu wax ci berkele ba la jëlé nan jël seen ay matuway bu nu mënul safara li nga xamanteni nit ñi dénk na leen nan tek seen nomba tak ñu jox ko ñeneen parce que amul lo xamanteni mo gëna for bakan amul lu gëna cher bakan kon nag nan jël seen responsabilité yi ñu war a def ñu def ko autoroute à péage boo xamante ni booy dem Touba ak booy ñëw Touba oto bu tàkkee wala accident am fa ñëppay dee amul kenn kuy dund parce que nu fa benn caserne sapeur pompier boo xamante ni war naa mën a sauver nit voilà kon nag loolu

di leen may bës parce que amuñu bës fii lañ nekkoon Grand Dakar di taxawaalu seen feneen di tux yamba ñu leen di jàpp ci kaso yi kon xam nañ ki may waxal du ma tudd turam. waa c'est que li wolof di wax rek bis bu jotee chaque chose en son temps comme jotaayu tey bi dañ doon junju mais bis yaa ngi ñëw ci bis yi incha allahu rabbi danañ génne ay preuve yu wane ni moo nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko waaw foofu lañ ci mën a toll actuellement. beneen bi bu mbiri Cheikh jeexee ñu waxtaan tuuti rek. ci affaire bi nga xam ne amoon na fan yële passé ci prison bu autorité yi lépp luñ ci wax waxuñ dëgg parce que man dama faa nekk nekk chambre bi gën a metti muy chambre 10 ba ma fa nekkee li nga xamante ni moom lañ tuddee ay dàmbaloo nit ñi di ci tëdd dafay maas maas boobu moo am chambre 11 ba ñu fëgg ay yooni yooni yoon pour autorité yi daal di ñëw lijjanti loolu autorité yi lijjanti wuñu loolu ba ñi ci dee dee ci ñuy wax ay waxi ventilateur di wax ay waxi tappale li li ñu wax yëpp dañuy fen dara amu ci lii dëgg ba dëgg mooy ñoom noo rey ñi dee te danoo war a jël seen responsabilité bu doon beneen dëkk la dañ leen di wàcce immédiatement kaso nag quatre miir la buñ jàppee ni mën nañoo tëj ñëpp nañ tëj ñëpp mais mënuñoo tëj ñëpp yàlla dëgg la bëgg ña fa nekk seen responsabilité mooy dàmbaloo yi weñ la am na ay maas yoo xamante ni chambre bi gën a bi dem fa ministre bi demul chambre 10 man def naa chambre 10 4 mois Moïse Rampino mi nga xamante ni ñoo nekkoon di liggéey Sénégal Info ñu torturé ko torturé yu metti yu méttee métti ci kanamu ñëpp ñi fa nekkoon ñu yóbbu ko chambre 9 chambre 3 chambre 4 chambre 1 chambre 2 mooy chambre yi fa gën a métti boo dee borom barke tey nga ñëw xaalis dañ lay jël yóbbu la chambre yi gën a baax kon am na ci loo xamante ni détenu yoo xamante ni ñu ngi dund lu metti mën naa ni Cheikh Mbacke Gadiaga Assane Diouf Rampino ak Wifrik bi nga xam ne jàppoon nañ ko trois 350 millions de dollars ñoom lañ gënoon a torturé foofu ci kaso bi te kaso bi la fa xew dafa jéggi dayoo ña fay dee te kenn xamul nu mu toll kon nag ñu ngi wax président de la république tegu na ko fi pour muy yónni ay ministre nuy dem naan saal avocat yi dafa climatiser ak yooyu loolu taxul na salle climat bu avocat bu climatisé yoonu détenu yi nekku ci détenu boo jàpp na ko defal kem kattan ak affaire banderole yi ñoo di tappale naka ngay nekk ak sa jabar di takk banderole nan génn ci waxi caaxaan yi bu ñu mënul li leen askan wi dénk nu bàyyi beneen bi mooy wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ki ma wax warumaa wax waxtu wiñ ma war a wax jotagul fi ñu ma war a waxee waruñu maa waxee foofu chaque chose en son temps waxtu wii laa mën a profité pour wax li xewoon Rebeuss mais ba ma kii communiqué naa ci média yi ñëpp xam sama position parce que dama faa nekkoon mais ministre bi du ministre bi ministre yi nga xamni ne fay dem suñu démé rebeus dañuy jël ñi nga chambre yi ño xamanteni par exemple def nañ fa 10 ans wala le nañ ay 15 ans wala nañ ay 20 ans ñu jox leen chef de chambre chef de chambre moy ki jité neeg bi bu ministre bi ñëwé ñoñu lañuy génné yobbu fu ñuy wax spécial yàlla dogal na nag li wolof di wax naan ku ëmb sa sànkal ëmb sa kersa ñooñu bu ñu waxul li neex administration pénitentiaire dañ leen di jële foofu yóbbu leen chambre yi gën a metti mais ministre bi du dem 10 du dem 9 parce que su fa demee dañ koy wax dëgg parce que ña fa nekk chambre yooyu ñoo gën a metti amul lu ñuy ragal seen àdduna man torturé nañ ma yóbbu ma fa 4 mois façon torturé bu boo yaakaar ci àdduna torturé nañ ma ko te autorité autorité yee ko doon def gis nañ fa nu mujjee ma dem cour de la justice CEDEAO ñu seetal ma wecc loolu looloo war a xamal justice Sénégal war nañ koo seetaat li xew rëbës nag ñiy dee te kenn xamu leen moo ëpp téeméeri junni yoon ñi nga xamante ni ñi dañoo fës rek siiw mais ñi nga xamante ni ñoo fa dee seen dossier boobaak léegi am na ëmat bu fa amoon mutinerie bu fa amoon ba léegi dossier bi mi ngi justice seen ay parents ñi ngi taxaw li xew li xew li xew ndar ba euh, fàllu seen deej kan mooy responsabilité bi ki nekkoon ministre des finances mooy responsabilité parce que bourse lañ doon jooy yooyu yëpp dañ cee war a wax parce que réew day doxee justice ay jël facture téléphone dagg ko yooyu yëpp baax na mais da ngay indi justice réew bu amul dëgg amul dara voilà ki nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur bi affaire bi amee man woo naa ko téléphone personnellement jëlul ma envoyé ko message wax ko li nga xamante ni moo am moom it réagirul ci lu mel noonu kon bu ñu toogee ñu naan euh, directeur général muy général euh, Mame Thierno Dieng jël na en charge cheikh du ku ñuy jël en charge parce que cheikh du fuqara yàlla suturaal na ko yàlla dimbali na ko ma foog ni réew mi réew mu mel ni Sénégal di réew moo xamante ni réewum démocratie la war na noo mën a procureur war naa mën a autosaisir ci lu mel nii ki nga xamante ni mooy responsabilité bi mooy Zo Azar mi nga xam ni mooy directeur général bu l'Africaine automobile ndax oto bi mayewu ko saraxewu ko oto bu nu jënd la lañ ko ci santoon pour mu def ko defu ko parce que lii du loo xamante ni punu bu taj la wala loo xamante ni el bu fàq la wala leneen ak leneen lii ci cardan bi la rocceekoo pneu bi daal di fàq daal di dem ki doon dawal dawalu sax lu ëpp 100 wala ay 120 wala 130 euh, bu fii may wax ak yow nag gendarmerie jëlu ko auditionné ko pour waral pour laaj ko lan moo waral accident boobu benen bi it moy ambulance bi nga xamni ni jël si nako parce que man bi affaire bi amé fa la ma fekk ambulance bi amul ben soin bo xamanteni occuper nako ci bir it lu lu lu lu lu ñaaw la ci rew mo xamanteni dafa melni dafa dafa dafa dafa tollok rewum senegal euh ñu wax ni rew mu am démocratie la kon autorité yi nga xamanteni ño ngank ŋànk amul ben responsable buñ ci def liñ ciy wax rek moy ki nga xam ni mooy sëñ Muntaxa di xalif général des mourides bi affaire bi amee yebal na ay tànkam yebal ay loxoom yebal ki nga xam ni mooy léppam di sëriñ Bachir Abdou Khadre mu def déplacement ñëw hôpital seet si ko démb ci lu tolloog waxtu di ko jottali ñaan ak ay sant ak ay ngërëm li nga xam ne seex def na ko ci yoonu murit ak ki nga xam ne mooy wasilaam di sëriñ seex saaliw ndax bépp moyen boo xamante ni euh, laaj na ko rek sëñ Cheikh Saliou def na ko ci kon nag négligence autorité yi nga xam ne ñooy autorité Sénégal euh, liñ ko defee ci ñëpp moom lañ ko defee ci Cheikh parce que accident boo xam ne woo nañ la 18 heures euh, sappoor nekk jurbel man ñi ngi ma woowee Touba mosquée ñëw naa toog lu mat ñaari waxtu yoo xam ni sappoor ñëwul ci accident boo xamante ni li ñu ñàkk ci deret kenn xamul nu mu toll ñoom ñeent ñu ko def chauffeur bi deful erreur ñi nga xamante ne ñoo nekk ci oto bi defuñu erreur ki nga xam ni mooy responsable bi nga xam ne mooy def erreur te yaakaar naa bu fekkoon ci réewu démocratie lañ nekk jàpp nañ ko dugal ci kaso bi mooy Jo Hazard bi nga xam ni mooy euh, directeur général bu l'Africaine automobile parce que AXA assurance moo ko fay 22 millions pour mu réparer oto bi nga xam ni moom moo ko jaayoon bees lam ci lañ ko ci santoon pour mu def ko defu ko ci oto bi amul problème leneen ak leneen ak leneen problème bi mu amoon ba ñu yóbbu ko fa problème boobu defu ko mu ngi nii seere bañ na dem si yàlla si pneu bi moo rocceeku ci disque bi jóge fa fàq ci cardan bi lii moo indi choc bi te am na ci loo xamante ni Cheikh du n'importe qui ci dëkk bi ndax gis nañu ni euh, lenn la sëriñ Touba deful muy mbay te chaque année moo koy xel ko teewal ko fa loolu defal ko jullit yëpp jumaay Tiwaawan ji Alaaji Abdoulaye Sy Al Amin yàlla yàlla dool leeram taasuñ ci barkeem Cheikh Amar lam fa def du sax lu nu mën a wax waaye nag sëñ Abdou doon na wax naan lu baax jant la mooy feeñal boppam për diine yi ñëpp la yemale ba ci jàngu bi def na fa teraanga kon kooku du n'importe kii boo xam ni dañ koo war a négliger ci réew mu mel ni Sénégal gis nañ nag yenn organe de presse yoo xam ni toll nañ fi ay jamono doon nañ ko attaque attaque yooyu plainte yooyu demoon na ci loxo justice ba léegi yemul fenn kon nag ñu xam ni cheikh ñi koy xeex ay nit lañ ñoo xamante ni ñu ngi fii demuñu fenn waaye nag samp sëñ Tuubaa kenn mënu koo daaneel ndax lii am baatin la ndax yaakaar naa réew mel ni Sénégal koo xamante ni lim am ci ay employé ci réew mi ak lim def ci réew mi su ko jëloon tey ñëpp jàpp ci kon ku mel noonu waruñu koo négliger ay jël nañ ko en charge ay nangam seex du foqara man mii rek bu ma feebaree clinique laay fajoo duma dem ay principal wala may dem feneen am na loo xamante ni dafa ñaaw te ñi ngi koy ñaawlu man en personne maa jël samay engagement parce que man du ma gan ci Cheikh sama xarit la lépp loo xamante ne xewla naa ko moo fay jiitu moo fay njëkk kon maa jël samay responsabilité ndax damaa fekkee du lu ma kenn mën a nettali bi ma ñëwee it li gën a ñaaw mooy nga tiim nit sauvé woo ko jëloo sa yére upp ko wala nga def leneen nga tiim ko di ko foto yaakaar naa ni am na loo xamante ni mën ngaa dagg yàpp nit ki di ko lekk parce boo tiimee nit xalaatoo ci moom simi sa yére nga upp ko wala nga def leen nga tim ko di ko foto yaakaar naa ni jàppal ni bu doon sa waajur la wala sa sœur wala ku mën a loolu dañ koo war a jeexal ci réew mi